wax ju bare hmm? euh, dinañ leen tànqal ak euh, musique bi trop waaye wax ju bare moom mënewuñ ko dëgg la effectivement euh, démissionné naa si sama poste ministre conseiller démissionné aussi ci coalition bi nga xam ne mooy Benno Bokk Yaakaar bi ma ko defee sax yàgg na dama doon xaar présidence de la République publier ko mais diggante bi information bi fuité benn journal bind ko ma dëggal ko mais nga may ma rek ma remercier président Macky Sall ndax 2012 euh, la ma jël ma nekk le premier musicien fii ci Sénégal ak peut-être Afrique nommé ma ministre jox ma département bu culture ak bu tourisme ma def ca la ma mën taxaw ca la ma ca war a taxawee joxe sama bopp ba mu jeex ba ma paree ci loolu mu jël ma def ma ministre conseiller ci ci biir cabinet ma xelal ko la ma man la ma yaakaar xam nag doo xelal